الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم يا همة السيقظ اعذري لنا يا المهدر وتحتفي بنسرة تعطي لنا بسمر الحمد مطلقا لسات الباري ثم سلامنا على المختار بدر الوجود مركز الأسرار سر السؤون مجمع الأنوار سمرة الكائنات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الهدوء سكورا وإناثا assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk ci yàlla waa Aynu Maadin ci njiitalu jëmm ju tedd di toog ci suñ boor ñu ngi sant yàlla beneen yoon sant gi ñu ngi koy tënk ci ne dañ fi toogoon daaw ñaan yàlla fekkee ren yàlla ci mbaaxam dimbale nañu ñuy fekkeewaat ba tal ko ba teewaat loolu cant yàlla bu rëy la ndax am nañu teewoon daaw teewuñu ren am nañu teewoon daaw fekk na leen fi waaye amuñ wér buñ teewee kon ñun buñ teewee war nañu sant borom bi tabaraka wa taala imaam ñoo ngi lay nuyu jataay bi sa jataay la yow yaay bunt bi fii ci dëkk bi su fekkee liñ oote yàlla la te li ma gëm ak li ma óolu mooy liñ oote yàlla la yaay bunt bi yaa amee caabi ji yaay ubbi li ñuy def yëpp ci sa ndigal lañ koy def ndax ñun ak waa daayira bi yëpp ci soloon lañ nekk xam-xam bi ak xam giñ la xam ak mbokk gi du tey dafa yàgg jiitu na daayira Modou wax na ko léegi Makka Farafeñe ak Aynu Maadin benn dëkk la toujours bu ma jokkoo tamsir eh, Cheikh Tafsir li ma koy wax dafa koy wax ne ko seen gàmm gi ak ñun suñ gàmm gi man xàmmeewu ma leen buñ imaam ñaanal ko yàlla nag yàlla bàyyi ko ci suñ kanam ba ci kanam a kanam te wéral jëmm ci ñi ngi ñaanal chef de village muy alkaali ku nuyu imaam nuyu alkaali nuyu nga dëkk bi yëpp suma ma bëggoon a dugg ci tur yi dugg ci kër yi loolu mooy doon conférence bi waaye jàpp naa ne su waxee ne jàmmi yàlla ak yërmande yàlla ak barke yàlla na ànd ak yéen kon naa loolu doy na jataay bi nag masuma ko ubbi fii ci lu rut bu ma nuyoo dëkk bi yëpp danaa fàttale ko ay jëmm yoo xam ne suñ demee ba am jitaay bu mel nii waruñ leen di fàtte suñ bàyyi bay alaaji Tijaan Ture suñ bàyyi bay alaaji Aliw suñ bàyyi bay alaaji Moot Xoja suñ bàyyi wala boog suñ mag baay Sadir Touré suñ mbokk ci yàlla nit ku baax baay Sidi Touré yàlla def na li ko neex faalun lima yurid du def dara ngi ne ko lu tax nga def lii waaw rek ci topp waaye lim def bu doon nit a ko def du demee noonu waaye moo ko def te moo ko sañ a def ndax li muy soppante ku alalam la moo tax ku am sa alal lu la neex nga ciy def waaye jëmm yooyu ak yeneen jëmm yi nga xam ne ñi ngi tëdd ci maxaabiru ayni maadin ci bàmmeel yi nit ñu baax nit ñu tedd nit ñu bëgg yàlla ci góor ak jigéen ñoo tëdd fii kon suñu amee jotaay bu mel ni le yàlla rek a tax ñu dajee nañ leen tudd ak luñ yàkkamti yàkkamti ñi ñaan borom bi tabaraka wa taala yal na leen yàlla yërëm yal na leen yàlla gërëm yal na leen yàlla teram waa daayira bi taxawee lii ak waa dëkk bi leen jàppale ci njiitalu Cheikh Tafsir Touré ñu ngi leen di ñaanal yàlla tey sàkk ci imaam ak mbooleen ku dëkkee dëkk bi ñi ñaanal xale yële jataay bii magum diina mën na cee toog de jataay bii magum diina mën na cee toog te xëdu na toll na foo xam ne léegi bakkan yi not nañ nit ñi ba yóbbu leen ci lu neex bakkan rek ولا سيما حب إذا رمت برأه تكون طريدا في مواقف مجمعي وذلك هب القطب أحمد سيدي وذا موقع الأسرار في كل موضع الحمد لله